itam lu rafet la lu baax la waaye li may wax rek mooy Dieyla man maa ko jur ci fadus yàlla sunas Mohamed musuma def dara loo xam ne lu ma naqari wala lu ma metti la waaw nit ku baax la nit ku am jom la nit ku am ful la nit ku am fayda te gëm li muy def te Dieyla kat heure boo waxee lu muy wax rek man sama yaay sama papa rek ka ma ñor yàlla may ma dund ba ba tekki rek ba ngeen noppalu ba doot da lépp ci leen moom lool rek mooy waxam bi mu nekkee xale ba léegi ma di ko ñaanal sama boroom gudd fan ak wér-gu-yaram di ko ñaanal fu mu bëggee yàlla sama borom eggale ko ci barke alxuraanu karim lépp lu mu namu ci waajur yéene ko waajuram sama borom defal ko ko ci barke Seydina Mohamed jay laa ah, musuma def dara lu ma metti def lu ma naqari déedéet xanaa bëgg rek bëgg yaayam di wax ne itam ah, yaayam kenn gënu ko néew moom moo gën jigéen ñëpp waaye jigéen gënu ko yaay ju baax la yor billaahi wallaahi wa taala yaay ju baax la jaay laa yor waaw kon jaay la fu mu bëgg yegg ma di ko ñaanal rek yaa samborom sa borom yeggale lu mu namm ci waajuram sa borom ko ci barkal Qur'aanu karim gudd fan ak wér gu yaram rek laa koy ñaanal waaw kenn gënu ko de wax dëgg yàlla man de ba ma ko yoree ba léegi meti loo metti lu ma naqari ci moom déedéet xanaa yaay papa man de lu lu ma fu ma toll ba ba ba ngeen noppalu rek la moo ma ñor dara ñor mu lu may loolu sama yaay sama papa rek waaw. am benn bis boo xam ne fu mu mën di toole itam mu ko gisul itam fu mu toole mi ngi jokkoo ak man papa mbaa yaa ngi ci jàmm ah lu mu am andil ma wallaahi waaw loo bëgg ah papa man loo bëgg rek laa bëgg waaw. deema ñaanal yàlla ma ne ko Gueye Ndior maa ngi lay ñaanal ah di nga gudd fan di nga barkeel di nga yokk ba tonni jumaay Tuubaa ci barke Cheikhul Khadim ci barke Sëñ Fallou Mbacke jaay lii am lu may wax ci moom mënuma koo fay wax dëgg yàlla ma waaw que li ma koy dénk mooy ah, mooy jigéen moom boo duggee ci néegu sëy na nga jëfee ndigal bàyyi tere parce ki mu nekkal itam ku baax la wax dëgg yàlla am ku baax la jappale na jeyla jeyla ginaaw yalla ak yonent bi ak ñaari waajuram jeyla fu mu egg ah, yaas moo ko feegalee dëgg am diko ñaanal rek guddu fan wér yaram na fonk borom kërëm dal parce que lo rek moy sey nit ki dal bo dé sey del jafé sa ndigal borom kër di bay ay na ne sa jëk né sa xarit waaw sa borom kër né sa xarit waaw sa andando loolu de bu ko defee te dana ko def itam parce yaayam roy waay la yaayam ji royuwaay la te bu royee ci foofu rek lu mu bëgg am insha allahu rabbi ak fu mu bëgg yegg billaahi wallaahi wa taala dina fa lu bëgg dina ko am ci barke Seydina Muhammad waaw ma koy wax rek mooy na gudd fante rek waaw gudd fante wér bu guddee fante lépp ngi ñëw waaw parce que mu taxaw la fi mu la dafa bëgg ay waajuram jël dafa bëgg ay bëgg ay waajuram loo wax ma ne sama yaay sama papa ñooñu rek ñoo ma ñor kon nag li ci des moom ah, di leen ñaanal rek yéen itam leen jox seen waay waaw fu ngeen bëggee yegg ak seen liggéey sans borom barkeel ko ngeen gudd fante wér waaw lu ngeen bëgg amee itam sans borom xéewale leen ko xéewlu saawaan baawaan ci barke Seydina Mohamed waaw waaw. yan kàddu ngay def ci nga xamante ne moom mooy Dia yaa ngi doon wax ne daf koy jàppale. mais liggéey ak li nga xamante ne moom moo di suñu kon donc yan kàddu nga koy def. waaw liggéey bi daanaka su ma yeboon ne rek waaw li mu nekkee ak moom yaakaar naa ne mi ngi bëgg a diire te mi ngi koy jàppale ci côté bu ne waaw yaa sa nga koy jàppale ci côté bu ne wax dëgg yàlla am kon loolu. daanaka jërul sori sax parce que ñun gis nañ fi mu fare fi ko yaas fare ginaaw yàlla ak yonent ba ñaari waajuram yi gis nañ fi ko yaas fare yaas ngi koy jàppale bu baax li ma koy wax kay néegu sëy boo ci duggee rek mooy li nga wax léegi boo ci duggee rek na nga gëm sa sa sa borom kër muy sa xarit di sa àndandoo ah waaw lépp looy def tàggu booy dem tàggu bu la nee demal demal boo bu la nee toogal toogal waaw sa kilifa heure boo koy tàggu rek. ah yaakaar naa ne du ngeen am benn kii waaw seen lépp day day day daal di kii bala ngaa jóg rek ne quoi ah, man ka damaa bëgg dem nanga wala damaa bëgg def nanga bu la nee defal nga bu la nee bàyyi nga bàyyi jëfee ndigal rek bàyyi tere ci bag si dañ fàll waaw loolu daal la am mooy wax ci jay na dina gudd fan nag dina barkeel waaw mu bëggee gëdi sama borom dina ko feegale billaahi insha allahu rabbi bu neex yàlla ak yonent bi lu mu bëgg jaay la lu mu bëgg dina ko am parce fi mu teg tànkam la bëgg nay waajuram loo wax ne sama yaay sama papa sama yaay sama papa ñooñu rek ñoo ma ñor kenn ñoruma sama yaay sama papa rek te ba pare ne koy jëfe di ko jëfee nag waaw lu muy xale bu tuuti ba léegi mu di ko jëfe waaw lu muy xale tànk ba léegi loolu lay jëfe lu muy toll ci ay douze cent treize cent yooyu ba léegi ko ba pare boo rek nag di ko jëfee nag waaw kon nag kooku moom man <laughs> yaakaar naa ne amu amu amu lu may kii ci jaay la dégg nga. papa ñu gis mm. na mm. Dieyla. kooku nag moom wax dëgg ah, sama kii du ki sori moom kooku moom wax dëgg sama mbir mënu caa sori waaw parce que loolu moom xaw ma ca dara lii daal man li ma ñor mooy sama diggante ak sama doom ak liggéey bi mu nekk nii ak ki mu nekk nii waaye diggante ma problème ak ñeneen moom wax dëgg yàlla am kooku moom aw ma ci kii dëgg yàlla am aw ma ci lu ma wax. barke sëñ Fallou Mbacke kontaan kontaan rek laa def barke kontaan rek laa bi yàlla na ci def jàmm ak salaam ñu egg ci jàmm ak salaam yàlla defal ñu jàmm ak xéewal Dieyla day sëy ba seey ndax yaayam dafa sëy ba seey man bàjjanam mi dama sëy sëy ba seey sama fa sama sëy bee la ma fa jële yàlla moo ko dogal ñun fuñ dugg dañuy sëy yàlla rek moo ñu fay jële waaye ñun duñ sëy di fa jóge Dieyla dama koy sëy sax lay def Dieyla dama koy ñaanal mu toog fa ba seey fa bu mu seeti na seey loolu lay def sax moom juddu jeerey dere man moo nekk ci moom li nekk man moo nekk ci moom am na jom am na fulla am na fayda barke Serigne Fallou Mbacke nekkul ne da ngeen a taxaw rek may wax am na jom am na fulla am na fayda ñëpp dañ naan ko li nekk ci sa bàjjan moo nekk ci yow te noonu la mel de nekkul lool barke Serigne Fallou. yaay ma isa jeey yaa baax yaa gore way neex na ne ko gëddu jeeray deret jee foor gay ma siireeg isa jeey yaa baax yaa gore way neex na aa jay la juddu jeeray deret jee foor naanan la ñaari yaa ka ma ñaaw way nii laay mbàjjen jaa ngi nii mbàjjen ma gi baay baay jëy kuñ ko tubbeey ay waaye jëy la géy ko tubbee moo nangoo liggéey bari jom tàccu leen lii waaye yéen baay nee leen mbàjjen ay baay ne ko njëkk a juddu njëkk a dara jëy la doom ji fii juddoo ne la bàjjen koo fase mu dem nee leen baay billaay nee leen mbàjjen ay billaay nee leen baay xoolal ku ko weddi wal ma baay billaay ku ko weddi wal ma baay waa yemale ko fi mun ta ñàkk nag barke